Mbacke Ndoye photographe professionnel fi à Thiès dafa am benn xew-xew boo xamante ne daal daf ma dal mooy samedi ci bi ñuy julli timis bon ma ñëw ci jàkk ji. kër sañ Ablaye jàkk la jàkk yi kër sañ Ablaye yàqin. ci ma dugg ci biir booree sëñ Fall. waaw bi ma duggee ci biir gàddu sama saak am ñu ma jiit leen ma jël sama saak teg ko ci sama kanam. donc bi ma tegee sama kanam am na tamit keneen ku ñëw jël saak teg ci sama wet saak noonu. ci sàppe yi ci sàppe yi sàpp bi fees dell bon euh, bi ñu julee ba pare rek ma xool gisatoon sama saak. ma jug daal di waaw man sama saag ma tegoon fii nangam sax après nit ñi ne jullit jàkk yi daal di génn daw bi ñu génnee hmm. am na benn femme am na ku newoon ci ne nee na moom bi muy ñëw mais bi muy ñëw dañu naan benn gaan buy génn yor benn saag bon boo génnee ci buntu jàkk ji am na benn femme bu fay toog boo xamante ni nii da waji ñew na ba ci mom niko dama genn ci jakk dama bëgg nga ma fatalama ma def ci ndax damay jappat mu may ko ndox mu raxas loxo rek dara baal ma dem so demé sama kër na mëna a fofu mu mel da doon bruyé pusi dé waaw da doon bruyé pusi bi pour dem. ndaw ci tam daal wax loolu daal mi ngi and ak beneen way bo xam dañuy def rasta waji nak mi ngi takk benn ndomba baat mais ndomba bi amna ben sëriñ bi nek mais bu mo wax turam. dégg nga mu jël saak bi daal dem bi mu demee ñu daw dab ma daw ci ess wër foofu yëpp gisuma dara mooy sama gaa yi te fu nekk dem fa daal bay guddi yooyu ma sonn mu dem tëdd bi ma xëyee le matin nag sama téléphone sonné benn waaye woo ma ni ma yaay Mbacke Ndoye ma ne ko waaw man ma dafa am benn saak bu ñu fo benn mbuus bu ñu for ay photo buntu pikin ma ne ko ah kon de maa ngi ñëw bi ma ñëwee. mu jox ma saak bi bi ma joxee saak bi ma xool kii bi mbuus mi la ma jox sax mais jox saak bi ma jël kii bi nu mu tëjati photo yi jël sama carte yi ci nekk yooyu yëpp. dafa amoon numéro téléphone moo tax waa ji woo la ci. waaw dafa amoon numéro na cent dix mille. Hmm. ak benn disque dur yoo xamante ne sama archive yëpp ci la nekk. est-ce que waa ji topp la ba ci biir jàkka ji xam na ne yor nga xaalis lu toll ci ah, la ñu bëri wax nag daf la topp parce que man bi ma toogee ci sama grand place ma toog ci wetu jàkka ji bi ñu paree dama gàdduwaat sama saak ni xaar bu dem jàkka ji fekk ñu noddu ma dem dugg ci biir jàkka ji jiit jiitle daal di bon simi samay daal deg teg noonu waaye nag saak ba mu fa bàyyi bi ñu ko xoolee amul dara mais jàkk jooju nag yàgg nañ fa sàcc ay dàll dafa daan jël dañ fay jël ay dal ni day ba pare geesu ay ñetti peer ñeenti peer duñu gis dara jàkk bi nekk rab la yàq bi ma defee bi ma defee jëf ji jàkk boobu nit ñi dañ fay jël ay ay dal à chaque fois bu ñu ñëwee jël fa sa dàll yu rafet daal ñu ñëw jël ko yóbbu doo xam ko kooke da ngay mujj daal di génn daal dem donc nag peut-être tey nag man man la tombeel ci saak bi xam naa ne won pour loolu mais comme dafa tombeel ci saak bi man bi ma sama kanam laa ko teg sama kanam laa ko teg jàkkaarloog moom nii mais julli dina toll foo xamante ni doo mën di xool sa bët bu di dem fu nekk mais bi ma demee ba dernier kii nag daa xool gis lu ñuul quoi man sama saak moo fa nekk pour man ma nga léegi mais bi ñu ne asalaamaaleykum ma xool gis ma sama saak ma jug daan mais man sama saak di gaawoon trop loolu moo tax mu kii quoi may may prévenir tamit muy jàkka yi muy église yi sunu mbokk catholique et tout ça ku yorti saak nañu xool d'abord bu lépp ne dafa benn bu nit bu génnee yor saak rek war nañoo prêter attention ci moom parce que donc yaa ngi dégg problème terroriste yaa ngi dégg lu nekk yaa ngi dégg bon nit ñi daal waroon a vigilant ci lu nekk daal boo gisee nag ma ñëw fi pour wax ko c'était pour nit ñi gën a prêter attention ci bu ñu duggee ci jàkk bu ñu taxawalee rek su nit génnee rek automatiquement rek war nañ ko bàyyi xel même su même man malgré dugg naa ak sama saak mais war nañ ma bàyyi xel tamit man miy dugal saak bi ba xam peut-être da laaj jublu wala yu mel noonu parce que léegi jamono bi dafa doy waar kenn xamul yaa ma gën a xam ni nga xamante noonu la demee nit ñi tamit war nañu vigilant ci côté boobu muy ci côté boobu ak ci manti doon tamit moo tax ma ne xaar ma ñëw ci Cheikh Anta pour ñu waxtaane ko daal ba nga xamante ni tasaare ko pour nit ñi gën koo daal moom daal mbir bi daal doy na